Bonjour. Tous nos anciens dirigeants, nos anciens chefs d'État, présidents de la République, à des moments situés et datés, arrivés en ces moments où chaque dirigeant doit faire face à son peuple les grandes décisions, ils ont tous de les prendre. En 1980, Senghor a su prendre la bonne décision et partir. En 2000, M. Abdou Diouf a su s'élever. Il s'est levé de son fauteuil et l'a rendu au président Abdoulaye Wade. Et en 2012, dans un contexte incertain, très trouble, le président Abdoulaye Wade a su s'arrêter. Il a su se retirer et a cédé le pouvoir à Macky Sall. Et 12 ans après, alors qu'on s'attendait à ce qu'avec Macky le Sénégal rentre dans l'ère de maturité démocratique, l'ère de consolidation des institutions. Voilà que Macky refuse de faire comme ses prédécesseurs. Macky Sall pulvérise l'architecture démocratique sénégalaise. Macky Sall bafoue les institutions. Macky Sall trahit le peuple sénégalais. Macky Sall, on l'a déjà dit ici, n'a plus la légitimité ni la légalité de son côté. Macky Sall ne peut plus prendre aucune décision puisqu'il s'est euh, mis en situation de président hors la loi, puisque qui ne respecte pas la Constitution ne peut pas être un président légitime. Macky Sall, il y a 12 ans, avait fait un serment. Il l'a trahi. Il a osé, avec l'acte qu'il a posé, les différents actes, mais encore plus hier, alors que le Conseil constitutionnel a été clair, lui demandant de fixer une date, d'aller à l'élection et fixer la date de manière à ce qu'il soit possible de tenir un premier et un deuxième tour avant la date butoir du 2 avril pour qu'il parte. Il dans le dilatoire, il ne veut pas céder le fauteuil et il veut ouvrir les frontières de l'incertitude, du danger euh, qui pourrait guetter Sénégal. C'est pour ça que le FC 25 sera debout comme un seul homme, le dernier rempart les candidats validés par le Conseil constitutionnel et qui entendent défendre leurs droits et au-delà de leurs droits défendre le droit du peuple sénégalais tout entier donc mbokk yi fi may daaneel rek tey wax ji jarul ñu koy guddal Macky Sall choisir na njiit bu ñu fi mës am dafa jiitaloon ngor jiital honneur jiital dignité bi nga xamee ni soxla nañ ko Macky Sall dañ ko teg fal ko mu bëgg a def boppam buur lii muy nar di ko jéem mooy yóbbu ñu ba le 2 avril du ñu fal président de la république mu invoqué article boobu ngeen dégg ñu koy wax muy article 36 alinéa 2 naan comme faluñu président maa fiy toog te moom mooy ki ko waroon fal comme ni ko euh, Boubacar Camara waxee nga xam ni askanu Sénégal duñu ko ko may tey duñu ko ko may suba askan wi du askan wu ñuy noot askan wi du askanum jàmm bu ko xamul képp kuy mbokkam nekk bitim réew itam wala partenaire Sénégal wala kilifa diine ya kilifa aada yi ñi ko bëggal jàmm bëggal jàmm Sénégal nañu ñëw téye loxoom ku mënul ni suur naa danañu génnee sa loxo ci ndab li parce que moom rek moomu ko donc loolu rek laa bëggoon yokk ci li nga xam ne nii mbokk yi wax nañu ko ñu leen di wax ne li mu laaj ci taxawaay dinañ ko am lu mu laaj ci détermination dinañ ko am man de Cheikh Tidiane Dièye wax naa ko dialogue Macky Sall demuma ci kenn ci gor yi fi nekk nii demu ci te lépp lu mu laaj pour taxaw dinañ ko taxaw te dina xam ne dina bàyyi Sénégal euh, ñu tànn keneen ku ñu doy mu yor suñu réew maa ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup